ah ñu fekk fi nga xamante nag daanaan ci làmb di Issa Pouye ñu fas yéene waxtaan moom tuuti ay kàddu Issa ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay ginnaaw gi la ginnaaw da yàlla gis yoon saa salaam di ñaanal ñi gën a àdduna ñëpp yàlla yàlla di wax ñu tëdd hôpital si loolu hôpital yàlla na yàlla fëgg seen bopp si koso yàlla génn jaam ak salaam di ñaan yàlla jaam waaw réew mi àdduna bi yàlla na jaam yàgg te jaam si lépp moom a kon jàmm moo jar ut quoi parce que yàlla moo yor nguur di nga xale ku war fi ne mais yàlla dogal doo doo doo nekk si nguur si ne xëccoo nguur nag jarul xeexoo jarul xuloo jarul jarul ay bakkan di wadda xam ne si borom mooy may may xañe man incha allah man dama woote sama carte kii yee fi man xaw ma keneen man. waaw su ma kenn man élection yi ñëw nii ku yar laay wooteel. dëgg la kii woote jàmm laay wooteel. dañu jàmm noonu jàmm si lu faj. waaw. di la nuyu bu baax na di nuyu Pape Fall di nuyu kii de sax Fallou Ndiaye di nuyu Assane Ndiaye di nuyu sama gars yi Lamine TV di nuyu sama gars fi teew di sama grand Khadim di nuyu sa àdduna bi daal waaw euh, isa li nga xamante ne mooy remise de rapport mais diggante Tidiane Faye la ak xale bi nga xamante ne mooy Kewel tey euh, combat la boo xamante ne combat la mais tey lan jox si combat moom laam ko daax wax dëgg mi nit ku baax mi wax dëgg yàlla xam li muy dëgg ndox rafet jël drapeau dégg ba du faal loolu tamit vraiment lu rafet la quoi lépp loolu lépp loolu lépp mooy waral mais maanaam ñàkk ñaan moo waral loolu sama doon yow ñu déggalal làmb loolu ñàkk ñaan la ko affaire noble la kon réew mi nañu yéen a jàmm quoi jàmm rek moom solo ñun ki ñaan amul solo. waaw day yàq quoi waaw. ñu ñëw ci benn combat boo xamante ne nii. xam naa ne suba ci diggante ki nga xamante ne mooy Sokh ak ki nga mooy Franc Issa combat boo xamante ne jamono ji combat jeunesse la combat bi nga xamante ne Issa am na coow làmb lool lool lool mais ñaar adversaire yi tey seen di seen combat seen seen bëre est-ce que euh, euh, dëppoo waaw xam nga combat boobu moom. xamatu que le meilleur gagne. làmb la quoi. Hmm. cinquante cinquante la. ku ne ma nga daam. combat bi xeex mun si bëri quoi. waaw. ci jàmbale rek laa mujjee incha allah. avantage si kan la si ñoom ñaar. laa d' accord loolu maa day ñu naan ay jiw na xeex mooy avantage xeex ñaar ñëpp la ku ne ndax ndax leen dafa am xeex moo gën a yomb bëri moo gën jafe xeex xeex moo gën a yomb da xeexee la jàppee da ko jëm da ki xeexee xeex ni yow kan boo la man ko moo gën a yooyu dam lamb yi bu ñaar yëpp waaw parce que lamba dafa am bëre dóor ko yi bu ñaar yëpp moo gën a wóor waaw na se ke a yaaga parce que waa ji soo xeex mu doo joxe tip mu la tip nga ne tip mu la tip nga jàppante léegi léegi indi bëre waaw kon la ñaar yëpp quoi moo gën a wóor quoi jàng ñaar yëpp mais Franc mbër wet ne ku ko jox wet sa wet lay jaar fël la daw wër la ndom mais soo ba joxe ba lu bari ci wet est-ce que combat bi dina pare pour corriger loolu waaw xam nga moom moom moom moo xam ne ànd na ndax foog naa ni ku ne nga xam li nga mën a loo mënawul waaw te laa ma ñu neex daal lu ma mën a lu ma xam mooy combat am neex la yi wax nag su booteel ànd ak yar man continue naa su booteel ñuy def trop loolu lu ma nag xarit la dama noppi di ko wax yaa ngi dégg waaw loolu lu ma ko quoi vraiment du yoon ci ñu jàppee damm du yoon ñu nuy tamit ñi may jàppale ñëpp ñu nuy gam ministre sport vraiment dinañ taxawoo làmb ji ak maam Boye Diao ak président CNG ak président Alioune Sarr tamit da nga koy nuyu bu baax parce que dëgg yàlla dañ borom baax la waaw wax dëgg yàlla liggéey na fa rafet mu liggéey fi kon sant yàlla waaw ñi ñaan ne tamit yàlla na ñu liggéey rafet tamit ba nit ñi ko solo quoi waaw toogaay bi boobu léegi lan la Issa lu muy xaar te Issa lamb ji fi mu ne nag ah Issa lamb fi mu jox jox soo na le problème mais ku lay proposé Issa yi Issa yi sama gars yi laa xaar Fallou Fallou Ndiaye laa xaar fi mu Ah. waaw moom laay xaar fii ah, pare ngeen pour déggoo yi ak Fallou Ndiaye. wax nii ma yóbbaale ka. ah kon nag Fallou Ndiaye dañu ko avance nga yóbbaale ka. wax nii war na yàlla ma yóbbaale ka. nga jël si xarum tabaski bii. mais ku nit ku ñàkk jaaxaan moo ko baax doxal bon kii tax ma noo ko may. non non promoteur mais dama kaa noo ma moo ko baax doxal moo tax ma noo leen moom ñoom. dégg nga ne benn coow quoi. te liggéey moo am solo quoi ay coow amul njëriñ. man Assane Diatta ñoo liggéey te boor ñoo tax wax. waaw liggéey àll wax quoi. waaw ma gars yi liggéey bàyyi wax lan la ko wax ñuy proposé jamono ji ci ay yeneen fan ñu koy wax. waaw waaw mais xam nga làmb dafa làmb léegi moom muy loolu mooy loolu. làmb dafa yàqu léegi. est-ce que nga pour ma sama bëre yàlla man dama fala fala yaa ngi dégg fu ma jëmal fala jëm. mën a bëri na Zarko moom du ma jël xalaatu ko sax. Zarko ñi moom du ma jël. Zarko suuf man la. xam naa la la man mooy Zarko la man ma kooku man ay rey ma def ay rey. barke Alxuraan karim. waaye yow Zarko ñu ngi la naan njoor nga daal ñii naan daan nga baax daa tax suuf. Zarko mu nekk daal si làmb ji. barke Alxuraan karim. ñu la ko joxoon tey Isa. si ñaari yaram si ñaari yaram billaahi amin du ko jël du ko jël ñaan du ko jël ngay xam na ko ku ne xam nga la man ko man du ko jël waaw ma soxla du ko jël quoi du ma jël dof na la wut du ma jël xalaat ko sax lamb ci waaw ni ñaan waaw ni ñaan qualifié doo yàlla na ko yàlla may ndam ak amee dem yàlla may leen ak rëg-rëg sama rakk yàlla si borom may ndam bu rëy a man amul lu jaare di nuyu sama grand frère sama grand kooku moom kenn la ci man Amara Sène kenn la ci man quoi oto ma ré moo ko jënd kooku wax dëgg yàlla oto na may taxaw bu mag yemee ni moom ma rakk doon sonn waaw. mais Coly Faye Ada Fass Coly Faye communication bi jamono ji ak Ada Fass combat boobu tey. waaw mais ñaan Coly Faye yàlla may ko ndam rek ñu lay julli ne dañuy ñaan yàlla rek yàlla mu yor ndam yàlla na ko yàlla may ndam. kon yàlla na ko yàlla may ndam suturaal ka loolu la ñaan yàlla quoi kon am ku mënta daan. ñu ngi ko. day bàyyi ba làmb ji. waaw incha allah rabi.